demuñu denc sa open press sa adversaire Modou Xarañ Lo interpellé ko ci benn question bu mu jàpp ni que da koy sopp ndax gis ne ancien coach moo ngi ci yow démb gis nañ ne Touba Gueye apparaître ci benn vidéo la jàppale gis nañu baxaaw yi nga xam ni mystique bu seen bokk na ci ñu ko yoroon ñëw fekk si leen mu ne loolu lépp intéressé wu ko. ndax wàllu producteur la am na benn mbër bu mag bu taxaw ñëpp taxaw na mu ne am na ku muy supporté pourtant kenn nga ku nekk yaa moom sa xol. yaa xam koo ciy dugal nga dugal ko ci. am na loo xamante ne nag du ma ci débat am naa staff am naa encadrement li ma gëm man incha allah Modou Lo bu xeexee ma duma ko bu bëri ma daan moom laa gëm Aliou ñu daal maa ngi koy sant maa ngi gërëm ak Omar Youm jërëjëf ak ma dikkee naa bu baax a baax ma koy sant bu baax ak ma sant